jërëjëf mbokk yi amati mbégte ak kontante bu baax a baax a baax jàkkaarloog yéen fii ci Sénégal Buzz 221 mbokk yi ni ñu koy defee ak yéen rek boobu léegi di ànd ak yéen ci li nga xamante ni moo di màggal Touba bi waaye tey ma dalalaat sama yaay booy maman Selbé Ndom démb nag sénégalais gis nañ ñu dalal ko toog waxtaan ak moom waaye tey nag moo toogaat ak moom ñu waxtaanaat ci lépp rek li nga xamante ni aajo woon na ci màggal gi euh, laataaloon rek ma nuyuwaat ko rek bu baax a baax a baax yaay maa ngi lay la siyaare waaw kay di sant yàlla bu baax jullit Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax jëre jërëjëfati Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul xale yi naan ko jërëjëfe Serigne Touba. jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba. ba tey ñu ci màggal gi. démb màggal la tey màggal la suba màggal la ginnaaw suba ba muy am une semaine. macha allah ñu ngi fii Touba. ah di sargal ñëpp. di bëggee ñëpp. képp ku ñëw Touba rek Selbé Ndom sukkal na la. nuyu na la raamal na la ziar na la ndax màggal nga màggal si ku ñëw fii rek da maa jàppale ku ñëw Touba màggal si man nga jàppale ndax bëgg gi ma bëgg Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ok macha allah yaay muy kàddu yooyu am solo waaye ba tey rek comme ni ñu ko waxee ci màggal gi la ah, gis nañ ah, ni nga xamante ni waa Sénégal yi màggaleen nañ ko màggal bi nga xamante ne moo di màggalu Cheikhul Khadim mhm. ah, li tax ma ñëw ci yow dafa am polémique boo xamante ni dafa juddu ci kenn koo xamante ni sénégalais ràññee nañ ko muy ajaratu Ngoy Fall démb ñu gis na nga noonu la màggalee ci or ya mu takk ci xaalis ba mu génnee euro yeeg dollar yeeg di ko mayee ba polémique juddu ci ñu ne puukare la wane wu la ñàkk respecté bés moo tax muy defee nii yooyu kàddu boo ko déggee lan nga ciy wax ak lan la def waaw di ziar Ngoy Ngoy Fall man Selbé Ndom maa ngi lay ziar moom taalibe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul maa ngi lay ziar soxna Ngoy Fall mhm. man mi nga xam ne man la yonent bi bëggal boppam maa ngi lay ziar man mi nga xam ne man la yàlla bëggal boppam ba jël sama yaram wi sama pooj bu càmmoñ bi def ci alquran maa ngi ziar Ngoye Fall. Euh, li fi am mooy lan yaa tey. ku lamb yaa tey. waaw daagul fañ la nobe euh. sa jëkkër nopp na la defal lu la neex defal lu la saf yaa tey. bu la neexee nga ut jamaa nga maye ko barakati laa ilaha illallah muhammadu rasulullah hmm. fii Ngoye Fall toll. ci or. su ma ko amoon bisub sëñ bamba bi rek laa am. déggoo ma de bisub sëriñ Touba lu ci waay def defoo benn puukare. dollar ya mu jël mayel. euro ya mayel ba mayel. liire ba mayel Deutsche Mark ba mayel. pound ba mayel. mayel lu la neex. ay waay àdduna bi. bàyyi leen iñaan li ngoy faal di def ku ko am joxe ko. taalibe Cheikh Ahmadou Bamba la Xaadimu Rasul day wane boppam ñun murit màggat rek la ñu am kon ngooy yàlla na la fi yàlla tegal ay jamaa. baa ah, suñu mbokku cantaay ah, teraanga àdduna bët yal na la yàlla jox ay jamaa nga di ko takk di ci dindi di ci maye ngooy commencé maye or baay yal na nga am or ba di dindi di maye. man Selbé maa la ko ñaanal ci darajay Seydina Mohamed barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul bul lijjanti ñi iñaan ñi iñe teeg ñi iñe ñi Sénégal loolu moo fi bari waaye yéen Mangoy Fall mii bi muy jënd ooram yi ndax ñoom ñoo ko jox xaalis ndax ba koy takk ñoom ki seen bopp ñoom ñoo taxaw ne ko takkal bii waaye takkal ba mu neex Sénégal moom ku leen xool am na si ñoo xam ne ku leen xool doo dem ndax dañ koo amut ku ko mën ku mën na def yaa man defal ñu mënul nañu toog mooy ku mën na def ku mënul na toog Ngoye Fall mën na mën na na na def ñu bëri yaay dafa am loo xamante ne aussi moo tax ñuy wax wax ji di ko ci xaw a clash tax bu ñu xoolee euh, bésu Serigne Touba comme ni nga ko waxee lépp lu ci waay def rek ngir euh, santale Serigne Touba yàlla dañ la ci encouragé mais ni ko a gisee mu xaw a ndur procureur wala wanewu ñu bari ne gisuñu ñenn ci mbàkke mbàkke yi nga xamante ne ay sët lañu wala ay doom ci Serigne Touba di ko defee nii nga xamante ne dafa ndur procureur buñ ko yoree def ko ku ko yor daal def ko man mii di taalibe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul fekke màggal rek sax procureur la fekk màggal jéeg oto ñëw ilaa Touba rek procureur la Touba rikale mbégte la ci mbégte mi ngoy faal nag daf ñoo gën a encouragé ñun ñun ñuy liggéey ñu yokk suñu liggéey gën a gën a jënd oor gën a defar barke Seydina Muhammadin yàlla moom dara ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bi sama yaakaar tey ak ëllëg tey jii billaahi wallahi watallaahi su ma ci amoon jamaa roogoo ko ca kaw ba ci suuf barke laa ilaha illallah ndax bis bi jar na ko boo xoolee nañuy jënd ay giléem ak i nag di jóor xarit ñuy jóor mis bi di daw jar na or de lan hmm? moo tax ñuy def giléem moo gën a mag lu tax ñuy def nag ma ne gileem ya hmm. jar na ay or hmm, dafa am ñu préféré loolu boo amee nag or ak jamaa defal ca biir takkaayul berndeel mayel euro ya déggoo ma ngoy faal mayel dot su mark ya ngoy faal mayel ca liire ya see faaba na dem addiya Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ngay joxe bu ëllëgee nga gën koo mën bu déwénee la koy gën a mën bu gën déwénee la ngoy faal di gën a takk or bul faale ñuy wax dañoo soxor buñ ko amoon def ko tubaarikàlla soxna si dartaaru tubaarikàlla damay koy xool ci soxna Aïda Diallo tubaarikàlla jigéen la daa mottaliku rek dafa mottaliku rafet na sànq laa koy xool mais mu ngi mi ngi rafet barke Seydina Mohamed soo ko xoolee da koy bëgg ndaw si dafa bëgg boppam man nag dama di taalibe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul xaw ma kër Ngoy Faal aw ma numéro Ngoy Faal taxuma ci buntu kër Ngoy Faal ne ko may ma juróomi dërëm waaye li ngay def moo rafet bëgg naa ko de su ma ko amee dama koy def lu raw ni mu ko defee defal ku mën na def mën nga defal bul déglu critique nit ñi bu déwénee yàlla nga am lu ëpp li ngay def nii. maye lu ëpp li ngay maye nii ndax suñ Tuubaa kat tànk kanam rek la am te Ngoye Fall barke Seydina Mohamed kanam rek la jëm. waaw ndax lu mu wane woon daaw li mu wane ren ko ëpp. Mm-hmm. te lu muy wane déwén incha allah li muy lu muy wane ren ko ëpp sëñ Bàmbaa ko nakkal. Mm-hmm. day dakkase dakkaseel ba mu neex la boole ci ay dakkase xii ni jóg ngay dakkase mooy dëgg ñeneen ñi nag le chien aboie le caravane passe. bàyyil xaj ñuy mbaw mbaw rek yow la ngay def nga def ko nekkal ci li nga nekk ngoy mooy dëgg macha allah muy kàddu yu am solo yoo xamante ne xëy na ba tey mënul woon ñàkk mbokk ci li nga xamante ni euh, ñu waxtaanee ko ak suñu maman Selbé Ndom ci actualité mu yàgg cee taxawaaye lépp loo xamante ne rek xew-xew la ci réew mi mu wax ci joxe ci li nga xamante ni moo di xalaatam waaye yaay ba tey ci màggal gi euh, démb ñu gisaat leneen loo xamante ni aussi Serigne Saliou ndigal cuun euh, defati na ko toppati ci li nga xamante ni moo di tànku baayam bu baax boobu Cheikh Béthio ñu gis démb ca biir baas mu takkaat fa ay sëy ci ña nga xamante ni ñoo di taalibe yi lépp rek ngir dëgëral li nga xamante ni moo di diggante initiative boobu noonu wala geste boobu noonu naka nga ko jàngatee. si sant yàlla julli Seydina Mohamed dafa mel ni Sëñ Saaliw bu Cheikh Béthio nekkul Cheikh Saaliw Gueule de Sëñ Saaliw cuun bu Sëñ Béthio cuun laay wax man duma wax Gueule Tapée ji dafa topp tànki baayam la baayam daan def la ci topp am na ay jamono maa ngi numéro ma doon ko pour wax ko ñoom ci seen biir nañ toppante nañ juboo ndax seen baay dama ko gis mu taxaw ci étage taxaw ci buntu kër kër gi mu tabax nag bi mu bi nelawee laa gis de Cheikh Béthio ci boppam laa gis ak baylaat ba muy sol taxaw ci buntu étage bu weex tal waaye mi ngi wax ak góor ñi Cheikh Béthio benn jigéen jaaxalu ko góor ñi mànkoo doon benn moo ko jaaxal hmm. loolu mooy problème fa mu fa mu nekk ba ma koy gis yëgagul woon ci biir kër ga fa mu nekk am na fa étage bu weex tal boo ma joxee kaamil ma teg ki sama loxo. mais dafa taxaw di waxtaan a góor ñi waxtaanul ak benn jigéen Cheikh Béthio waxul fi ne wax jigéen ñoom ñii seen seen biir ñoom góor ñi la bëgg ñu mànkoo maa ngi doon woo euh, sëñ Cheikh bu Cheikh Béthio xalif xalifa cantaaku ni maa ngi ko doon woo pour dégg ko pour wax ko loolu ma gis ci baayam pour ñu mànkoo boo xoolee nag yi mu indi ren. ñuy wax muy maye la ko Cheikh Béthio sant def na ko tabaarikàlla mm. Cheikh Béthio kontaan na man mii nga xam ne nekkuma cantaakun mm. doon murit doon taalibe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mm. damaa bég ba ma gisee nag yi damaa kontaan barakati laa ilaaha illallah di ko ñaanal xalifaam gii mu yàgg ci lool te ànd ak wér ba mébét bu mu bëgg a def yàlla na dund ba def la baay lu sut la baayam doon def maa ngi ko koy ñaanal ma eggi nag daa jaar fi baayam jaar rek boole ñaari nit ci farata yàlla sunnas Muhammad mm-hmm. baax na mm-hmm. baax na nu munti demee baax na mm-hmm. mayee ci baas ak ci mbedd moom la baayam doon def mayee ci baas boole ay nit ñu nekk ci faras yàlla sunnas Muhammad moo gën nga gis sa ñaari bi ñu bëggante te maye woo leen ñu nekk ci li leen neex di mooy yàlla kon na mu def dara nekk ci cuun yal na ko yàgg def man damaa ànd ak moom bu defoon loo xam ne jaaduwul dama ko lii mu def jaaduwut ndax man dama di taalibe Sëñ Tuubaa boo xam kenn jox ma genn waa liberté li may am maa koy liggéey taalibe Cheikh Ahmadou Bamba laa Xaadimu Rasuul bañ naa ko ba ci Sëriñ Tuubaa laa te fekkoo ma génération nangul ma suma taalibe kon maanaam duma tudd kenn ku dul Sëñ Tuubaa ku nekkul ci yoon dinaa la nekkul ci yoon li nga def nangam wax ci li sama xalaat ndax danga maa laaj kon maanaam la mu def jekk na baax na yal na ko fi yàlla bàyyi ñuy bégee di bégee ba mu màgget ba sut baayam fan man de cuun loolu laa koy ñaanal rafetlu naa ko daal vraiment nice na nice macha allah yaay booy xam naa ni waxtaan bi du gudd rek ndax euh, lu wunul noon ñàkk la loo xamante ne xëy na euh, gis nga ni mu demee nga bëgg cee joxe li nga xamante ni moo di sa xalaat ndax mm-hmm. taxawaay boobu nga am ci réew mi mm-hmm. euh, àndoog kii farog kii waaye polémique bu amee rek wala bu dara xewee di nga ci jox sa xalaat te ku ci jàng rek wala nga bàyyi ko xel mm-hmm. di nga ci jàng jëriñu ci muy kàddu yu am solo yoo xamante di ñu nga koy kontaanee bu baax di ñaan yàlla aussi yàlla yàggal sa taxawaay fii ci Sénégal yaay booy ma baal rek ma joxe dernier kàddu waaw di a Selbé Ndom a ngi nii am naa ci métier mi fukki at ak juróom lu ma lekk lu ma naan fu may tëdd moom ma ko may kon xam nga métier bi du caaxaan ñu woote rek ci 77 744 39 18 77 737 67 46 ku ma woo maa ngi pettaaw yi fii maa ngi portable yi ku ma woo di nga ma jot direct ñu seetal la incha allahu rabbi te di waxati rek jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mm-hmm. Ngoy Fall mm-hmm. takkal say jamaa sax man Selbé Ndom maa la ko wax dara nekku ci tooñul kenn de Ngoye Fall tooñul kenn de nañu seet suñ taraay bàmmeel hmm. li muy def su ma ko amoon def ko keneen ak keneen bu ñu amoon bu ko amoon def ko bu hmm. nekkee ay mag hmm. góor ñoo koy wax bu ko seen jabar amoon ñu takk ko su nekkoon ay xale seeni waajur yu jigéen buñ ko amoon def ko kon kii am na ko nañ ko ñaanal mu jikkoo mooy wax ji te ziyaare sëñ Saliou Thioune waaw ah. tubaarikàlla mention spéciale fa sa baay jaar wala yaa ngi tànk yi waaw gërëm di sant di la gërëm élage sama doom ji baax ji sama doom ji ma yéene di gërëm eh, mam ale tamit Sénégal bés 221 suma Sénégal bés suma la waaw bu ci kenn buruxlu nag bu ci kenn buruxlu amul kii euh, c'est pour moi. c'est